assalamualaikum mbokk internet yu Dakar Instant ñu ngi leen di jaajeufal di nuyu képp ko xamne ne yaa ngi ñuy bàyyi xel fi ci Dakar Instant tay ñu ngi fi ci marché Ngelaw ñëw kër sëñ Cheikh Sang Ñaan Cheikh Souleymane Ñaan ñi wajjal bis bi nga xamanteni mom lay amal at mu jot muy euh, cant gi ni defal Cheikh Moussa Cissé chaque année annuel yi nga xamne ñu ngi koy defé fee ci Maris Ndiaye tay ñew ci kër Cheikh Sang Ñaan fekk ko fi ci këram muy wajjal ngir dem ci barab bobu nga xamne fa lay defé cant ga muy Maris Ndiaye Nyala la ilaha la ya la, ñaan ya rasulullah ila ila ila la yàlla ya eh, mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu ñi ngi leen di ziar di leen ndokkeel di leen ñaanal jàmm ak tawfeex te di ko ci yéen mboolem ñi nga ñi ngi Dakar instant ñu ngi leen di béggee bu baax a baax a baax a baax a baax di leen ndokkeel di am mbégte ci ñoom ci seen teewaay fii ci kër kilifa gi. ah ñuy bëgg a jox kàddu ki nga xam ne nag kenn la ci Cheikh Moussa di bëgg a jox kàddu ki nga xam ni damay wax ne ki ko defar ka defar kooko mooy Cheikh Ahmadou Bamba Khadimu Rasoul Serigne Touba moo seexal Cheikh Moussa si sa njàmme borom daaru Cheikh Moussa. sang ñaan mii di seex Souleymane ñaan dem akki ko ne ko damaa dégg ne da ngay defaree da ngay wane yàlla wan ma ko mu ne ko boo ma joxee sa bopp taba ma ak sa bopp ma yóbbu ci yàlla ba nga yëg ko mu ne ko maa ngi nii ku ma defar wan ma yàlla laa bëgg mu tàllal ko loxo jokk ci moom mu tarbiye ko tarxiye ko tasfiye ko defal ko kasfu defal ko fathu defal ko xabul defal ko lijaaba defal ko inaaya ak diraaya koku lañuy bëgg jox kàddu moy kan moy Cheikh Souleymane ñaan Ndiamé borom daru alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi ndokkel bu baax yalla ci yeen yeen ñi nga ite jël ngeen seen ak seen pas-pas ngir fekke bes bi nga xam mom lañu taxawal Cheikh Moussa Cissé ci Maris Ndiaye ci Dakar ngeen yëkkati seeni télévision ngir jëmmi yàlla pare leen te xam ne fayab yàlla ñëw na ci yéen ñu ngi leen di wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. E, Cheikh Moussa Cissé nag suñ laajtee mooy kan liñ leen di tontu rek mooy koo xam ne ñëw na. pour dimbali jamono ñëw na ku bugg a dimbali jamono nag li yonent bi indi woon moom ngay indil nit ñi te dafa bari loo xam ne dañ koo jiital te fekk jiituwut mu mel ni ñëpp a ngi yëngatu waaye mu yëg ne la taxoon yonent bi day yëngatu la taxoon Cheikhul Khadim day yëngatu la taxoon Cheikh Ahmed Tidiane di taxoon Cheikh Abdou Khadir di yëngatu la taxoon Cheikh Asxal al Islam Ibrahima Niass di yëngatu ak ñeneen ñu dut ñoom ñu jàpp seen tur ak ñu jàpp seen tur nga xam ne yoonu mbaax lañu aw muy yoonu yonent bi sallallahu alayhi wa yàlla def leen ci mille réew wala ci àdduna bi yëpp lañ daan yëngatu xam ne mooy dimbale àdduna boo àdduna baax loolu lañ desal gannaaw moo tax tey nit de def safaan ñu seet ko ñu ne jullit la te def safaan safaan mooy takk bomb mun naa nekk takk bomb mun naa noo yor fetal te tiital adduna bi lu nekk ñu di ko def ci adduna bi mbootaayu xeet yi taxaw nañ l'état yi taxaw nañ média yi taxaw nañ pour loolu mën a siiw pour jàmm mën a am te terewut mu mel ni loolu day gën a dox rek day gën a dem loolu nag la ko daan saafara nga xam ne ci jamono yonent bi loolu moo ko daan saafara loolu la yàlla indiyaat ci moom mu jëlee ko ci Serigne Touba loolu mooy lan heure bu nit ñi jaawalee fi yàlla de gërëmee nit ñi heure bu ko nit ñi jaawalee rek ñu jaawaloo ñu jaxasoo tey nit li taxaw li taxaw li tax li taxaw ci Maris Ndiaye dañu bëgg adduna bi yëpp xam lan mooy xam yàlla ak lan mooy jaamu yàlla moo indi lii seen tele nag njëkk taxaw pour préparer pour loolu lu ci mën a feeñ mu tasaare ko ci adduna bi yàlla yàlla ngërmal yàlla ñëw ci yéen te ñëw na de maa ko wax de adduna fu mu mën a nekk fu islaam mën a nekk rek ñu tuddoo islaam turoo moo fa nekk tey waaye mboot ma dëgg-dëgg dañ koo desal gannaaw tey loolu taxoon nag yàlla ni joxeet jël cheikhul xadim cheikh Ahmad Bamba mu ne tel feeñ gannaaw bi yonent bi feeñee waaw loolu mooy lan xam yàlla koo ko laaj mu ne la xam jullee koor ak gén mi asaka ak aj mag déedéet loolu bokku da xam yàlla loolu lu mu baax baax mooy xam santaane yàlla dafa am mbootaay bu def nii ngeen def ñu laaj ma waaw yéen seen yëngatu bi lan la ndax ñun kat xam yàlla gannaaw gëm yàlla jullee koor ak génn mi asaka ñun loolu lañ xam-xam yàlla ma ne leen li ngeen wax xam yàlla du xam yàlla ñu ne ma dañ bëggoon nga wax ñu xam yàlla te nga indi ko ci alquran ma ne ko waaw kay jàngu leen alastu bi rabbikum qaalu bala mu ne ah kay jàng nañ ko de ma ne keroog la xam yàlla am lu tax ngeen de dem ba mu nga ne seen mbir mi waaye Sëñ Tuubaa dañ ko waxoon sa mbir mi yeneen bi dañ ko wax ne sa mbir mi ku top yonent bi rek jàng na seigne tubaay dañ waxone ku ko top rek génn nga l'islam bay nga sit lolou lañ ko waxone nit ñu bax ñi ñep lolou lañ leen waxone heure bo feñale mbir ma rek ñu wax nako xam ngeen luy xam yalla ñu ngi ko xamone ñun ñep ko xamone ci yow ma alastu bi rabbikum ñu ne ma ah, man leen li mo am ñu ne ma jang nañ ko ko dañ ñew ci aduna ñu deg lolou de yalla waxaanu ci alquran ko leen ma waaye yéen lu tax yàlla leen ma dañ xamone yalla booba jaalumul arwaax la ñëwaguñ ci jëmm bi ñu yàlla indee ci jëmm nag jox ñu xel nañu fàttaliku leen ma nag indi ñu yonent ne fàttaliku leen ma lu ñuy fàttaliku lañ xamoon yàlla démb waaye tey koo laaj nañ koy fàttalikoo xamu ko ku fàttaliku julli fàttalikoo yàlla de fàttaliku nga digle yàlla ba ngay xam yàlla julli amut or amut gën mi askam aj màkka amut keroog xam yàlla loolu nag la ñuy fàttaliku moo tax tafsirul quran fil quran aaya bii fàttaliku ma bii aaya bi wàcc alamul arwaax alastu bi rabbikum moom lay fàttaliku képp ku ko amut nag bés soo demee doo am lay li tax ñu tuddee ñu yàlla yàlla dañu sëñ ci jamono sëñ Saliou Mbacke la woon sëñ Saliou Mbacke daf ñu dafa ebaloon sëriñ bi sant ko benn sas bu mag ci xel koom boobu ñuy tàmbale xel koom suñ demee nag di waxtaan comme ñun dañuy addis suñu waxtaanee pare dañuy toog di waxtaanee yàlla léegi nag ku ñëwati dañu ut te yor kurus ñu ne ah yéen xam naa ñi ngeen di ut mooy ñuy wax yàlla moom ngeen di ut ba yàgg nag ñu ne ah, yàlla yàlla yi ngeen di ut yàlla yàlla mooy ñi nga xam ne fuñ toog dañuy wax yàlla yàlla yàlla yàlla di waxtaan yàlla loolu moo indi baat boobu te loolu yonent bi moo ko yonent bi dafa ne doonte benn aaya ngeen jëlee ci man su ngeen demee na ngeen ko waxee na waxee aaya boobu loolu nag moom la Cheikh Moussa Sy de fedd li feeñal ko ci téerib yàlla bi pour fexe daal ñëpp am ko loolu moo indi baatu yàlla yàlla baatu yàlla yàlla loolu moo loolu rek lay tekki amul leneen foofu lañ ko jëlee ci xel ko yàlla yàlla ci lislaam la tënku baatu yàlla yàlla lislaam la mooy ñuy waar ni ñi ci yàlla ngir ñu mën a xam yàlla lu bokkul ak julleek xoor ak génn mbay mi asaka waaye ci biir lislaam nag kër gim ci doon mooy kër Cheikh Ahmad Bamba ndax ki ñu ko jox sëriñ tubaa moo ko ko jox waaye Serigne Touba bi mu koy joxe wird la doon jox mag ñi ubbee ko ci téere bu ñu wax Masaalikul Jinaan tuddee ko baabu wirdi buntu bi nga xam ne buntu wirdi rek la ne képp koo xam ne nag wirdi bi nag képp koo xam ne aju na ci cheikh Ahmadi Tidiane wala mu aju cheikh Abdou Khadir Jaylaan mu aju cheikh Amadou Khadir Jaylaan wala mu aju cheikh Ahmad Tidiane wala ñeneen ñu dut ñoom ci borom wirdi yi sëñ Tuubaa na seen mbir lu jub la lu aw yoon la ittee wirdi mooy yóbbu nit ci yàlla ñoom ñëpp seen ite nee na mooy yóbbu nit ki ci kanamu borom bi kon kay léegi Tidiane bu xamul yàlla. nan la mën a waxee ni mu ngi wér da xaadir bu xamut yàlla nan la mën a waxee ni mu ngi wér da murit bu xamut yàlla nan la mën a waxee ni mu ngi wér da wér seen ittey wér moo yóbbu nit ci kanamu borom bi mu xam borom bi loolu rek mooy ittey wér de moo xam dafa tukkee Cheikh Abdou Khadre Jilani wala mu tukkee Cheikh Ahmed Tidiane nee na ñoom ñëpp seen yoon lu jub la lu aw yoon la ittey wér de moo yóbbu nit ci yàlla ndax lii su ko ñëpp amoon ndax duñ joxante loxo ndax àdduna du nekk benn kon ndax da nga diggati safaan fenn nit def ko rek ñu ne jullit la moo xam arab la moo xam ku mën a doon ci àdduna sharia la ñuy doxal te si la ñuy déggut seen sharia képp ku jël jamono gii ngànnaay jëme ko ci kaw nit ni da ngay jihaar sa jihaar ga matut parce que yonent bi bi ñuy jihaar ci jaas daf ak fett yi dafa toog bu yàgg mu nu jihaar bu mag bi bu ndaw bu mag bi bu ndaw bi ñu ngi dem ci bu mag bi mag nafsi waxtaan ak nit ci tey ak bakkanam ba mu bëgg lim bëgg xalaat ne lii dëgg la xam ne jaamu yàlla na day dee te malaaka yi dinañ ko dar ne ko kan mooy sa borom dañ ne julli la ñuy njëkk laaj déedéet balañ laay laaj julli liñ lay njëkk wax mooy man rabbuka ku doon sa borom parce que ndax fàttali ko yàlla ci ko suuf loolu nag soo ko yóbbaale nga mu lii nag gannaaw yóbbaale wuñ ko te adduna bindoo nii yàlla yàlla nag jog ci biir tariqa murit yàlla yàlla jog ci biir tariqa murit julleey pour lan pour dimbale nit ñi yóbbu leen ci yàlla ñu xam yàlla delluwaat cosaan ñëpp mën a joxante loxo nekk ci jàmm di deflante jàmm di waxlante jàmm ngir jëmmi yàlla lii moo tax tariqa bi jóg bés bii nag ñu taxawal fii tey ay góor yàlla yoo xam ne dañu naan ba mànd ci leeru yàlla gi walbatiku nag tey bëgg loolu ñu jëmal ko ci àdduna bi pour ñëpp gis ko ñëpp xemem ko ñëpp dox ci kenn ku nekk la nga amoon ca njëlbeen ca yàlla mu dellu siyaat yow nga am ko ndax nga mucc gis nga képp koo xam ne agut ci yàlla gisut suñ borom julleem yàlla du ko nangu xooram yàllam du ko nangu aj yàlla yàllam du ko nangu wax ma lu tax yàlla moo ne yàlla moo ne lu ëpp ci nit ñi dañu tax dañu gumb dañu déglu nag yàlla bind nit ñi te neen lu ëpp ci nit dañu tax dañu gumb dañu lu waaw luñ gisut jëmi subhanahu wa taala lañ gisut mun ne te képp ku loola dal doo dellu siyaat ci man léegi nag yàlla moo wax waa yàlla boo ne su ñu ëpp ci buñ dañu tex dañu gumba dañu lu te ku tex gumba doo dellu siyaat ci man te delluwaay bi benn la te yàllaa wax su fekkoon addis sax werante am yàllaa bind ñi gën leen xam ne li ëpp ci ñoom dañu tex dañu gumba dañu lu te ku loola dal doo dellu siyaat yow ñu ne la kaay ñu woon la te yàlla ne ku gisu doo dellu siyaat ku am xel nooy def ñëw ci njàmme daaru yàlla yàlla yi ne nu may def boo gis nu may de boo xool te nag bët yii duñ gumba xool yi ñooy gumba sa bët yaa ngi xool waaye gisuñ xool ak gis bokkut feek gisoo sa borom bi nga jóge ko woon barke dem bu ñëw fii waaye yow soo fàttee fi nga dëkk ci ndakaaru gi nga fàtte ko yar taxi da nga fa demam da ngay war bu sonn koo laaj fa nga bàyyee ko woon xamatu ko lu tax xamatu ko ala subhanahu mu xaalu bale yàlla ne fàttali ko leen ma xamoo loola nooy demee loolu nag la ñuy jëmal ci béréb bii mu tukkee ci ay xale yoo xam ne ñu nga nekk ca France walbatiku taxaw bi te benn aya jiite leen ñu walbatiku taxaw ci lii ak ñu nekk fii ci réew mi ñun ñu nekk seen kilifa dimbale leen ca loola kooka nag ka ko jox ak ko jox ak ko jox ak ko jox man mii maa jëlee ci Cheikh Moussa jox ñëw ñëw calal googu ci man mii la jógee ko déggin dey moo uutale mbir mi déggin mooy rafetal mbir mi déggin moo uutale mbir mi déggin mooy rafetal mbir mi ki àggut moo wax ne yonent bi nee na su ma demoon tuuti rek ma lakk ma seey jibril jibril malaaka la nit moo gën a foor malaaka nit bokkut ak malaaka jibril tur bi rëy na def na lu nekk waaye nit lay ci nit la ko yàlla di yónni mu di ko indil yonent kooku yonent bee ko gën a foor moo tax bi mu demee ba demuwaay ba mu ne ko man fii laa mën a yem su ma jàllee damay làkk wax na dëgg malaakala moo tax mu mm président yi fi ñuy daje président lañ fa soxla kenn bokkut ca keneen léegi nag yàlla moo soxla yonentam moo tax jibril bokk ci malaaka la day toog mu yéegal nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag déggal li mu wax suma dannaa fa da dallaa fa kaana xaaba qawsayni aw adnaa wa awha ila abdihi ma awha wa ma kasab faadu ma raa fa tumarunu ala ma yara yàlla wax na ne jegehante naa ak yonent bi ni xocc ak xala wala lu gën a jege loolu waaw lu gën a jege loolu mooy lan soo jëloon weñ dugal ko ci biir safara xam nga jege na safara bi waaye jegeegu ko nag bu baax safara bi su demee bu niroog moom nag mooy wala lu gën a jege loolu dafa dem ba jeex tàkk ci yàlla jeex tàkk ci yàlla bu dara nekkatu fi lu dul yàlla rek fa nekk moo tax mu ne jox naa fa sama jaam ba nag la ma ko jox ndax yéen sax da ngeen bëgg a weddi ci lu yonent bi gis li xolam bi gis ndax da ngeen bëgg a weddi ne loolu li mu wax du dëgg li xolam bi gis loola nag mooy mbir ma nag keroon loolu gis lam gis nag mooy boromam la jàkkaarloo loolu moo tax loolu amuñ ci benn wérante am na ñu indi beneen wérante wax ne yonent yàlla Moussa yonent la woon am na sax ku ma laaj li nga wax ni ni ma yéen ay nit ngeen te Moussa wax na damaa bëgg a gis yàlla te yonent la woon te mënu ko woon gis ma ne ko da ngaa firi benn aaya loolu mu ngi ne li nga wax ni mu ngi nekk suratul araf a naa ah, ma ne ko da firi benn aaya doo indiwaat beneen aaya mu ne ma ban aaya laay indiwaat ma ne ko aaya duñ ko firee benn aaya heure boo tekkee alquran ci benn aaya dangay ngay daanu yent bi dafa wax ne aaya alquran tafsirul quran fil quran la aaya boo gis ña beneen aaya nga koy peeslanteel mu door a mën a jàll dégg nga li ñuy wax nii ni Moussa gis suñu borom ba muy bàyyi ko ci champs bu ànd ak ay gàttam yi nit ñam nitam ña mooy soxnaam ak ay doomam ba muy ñëw benn lëndëm daf leen dab ki gisu gisul yàlla de na déglu laaya bi mu xam ne Moussa gis na suñu borom moo tax aaya feeg jëloo beneen aaya àndale leen soo ko attee du weer léegi ba mu bàyyi ko ci champs bu da ñëw lëndam daf leen dab ak sedd mu toog bu yàgg rek mu seen benn safara mu ne yenn sumay sumay nit xaar leen ma fii ma dem ci safara bale dindi benn ma indi lu dindi suñ sedd bi benn ma indi ab lay wu indi fa ab xibaar ba mu demee ba jub xur yàlla yonti yàlla Moussa Moussa mun naa mu ne ko sumil sa dàll yi bi nga jub si xur bu sell la ba muy sumi dàll yi dugg ci biir xur war mu ne ko yaa Moussa inna nii an allah waaye yow su ma la waxoon ne man maay suley ñaan doo ma xam su la waxoon ne maay sang ñaan doo ma xam en tant que nit léegi nag yàlla moo wax Moussa ne man may yàlla moo tax ñuy wax ne gisuñ ko nañ maandu te ci sax ne ko dara ne woo fi lu dul man laa ilaha illa laa ilaha illa ana xamal ne dara neew fi ku man man maay sa borom xamal ne dara dara dara nekku fi ku man sa borom door ko wax fa abud ni aqimu kon bu ñu waxati ne gisut ko loolu nañ toog ñaan ci barke malaaka yi njuumte la nit moo gën a foor malaaka ñaan ci barke yi nit moo ëpp doole ñaan ci barke yi malaaka garde ak muy garde ku gën a foor nit nag malaaka daf koy garde kulli yoomi moo tax jibril mën naa ñàkk a parce que su demee loolu lakk waaye nag ki yàlla bind mu gën a foor ne ko yaay suma kuutal nit rek la wax ne mooy kuutalam waxut ko malaaka waxut ko leneen nit mooy kuutal yàlla ci kaw suuf waaye ni mu ko nekkee nag war naa xam lan la yàlla moo njëkk a jàngale boppam ndax nekk ma seen borom ah kay kenn mënatu ko nag ku nit moo tax ba mu ne nekk naa benn ndam kenn xamut ma waxut ma génnee ca malaaka de ma bind ca benn mbindeef rek la wax mbindeef googu nag mooy ñëw jiitu mbindeef googu na mooy yonent bi mbindeef googu nag mooy saaba yi mbindeef googu nag mooy taabi oona yi mbindeef googu nag mooy taabi taabi oona yi mbindeef googu nag mooy xolomaaw yi ba ci Serigne Touba ba ci Alaaji Malik ba ci Cheikh Abdou Khadre Jelaani ba ci Baye Niass ba ci Cheikh Moussa ba ci kii toog ak nii di wax ak yow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 86 56 adresse email gmail.com